asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki internautes yi mbokki téléspectateurs yi nuyu nañ leen fii ci grande mosquée bu Touba di leen wax ne dal leen ak jàmm ci xibaar yi nga xam ne moom lañ leen jagleel di leen ko baaxe ci wàccaayu màggalu Touba 1444 ginnaaw gàddaay gi di atum 2022 mbokki xibaar yi dañ koy door rek ci gaaw bi dëpp woon ak fukki fan ak ñett ci safar atum 1444 ginnaaw gàddaay gi doonoon le 10 septembre 2022 président Macky Sall. mi nga xam ne mooy njiitu réew mi ñëw na fii ci Touba Mbacké ñu ko baaxoo amal at mu jot bu ñuy waajal màggal gi mu ñëw nag doon ziare si Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides àndoon ak délégation bu takk boo xam ne bëri na ci ay jëwrin ak ay directeurs généraux mu fekk Serigne bi fi nga xam ne moom moo di ca Daarul Minaan bi mu agsee ba nuyu ko saafonte ak moom am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko feddale waa kóllëre gi nga xam ne dox na ci digganteeb Cheikh Mouhamadoul Mountakha ak ñaan yi nga xam ne du dakk di ko ñaanal ak naan yi nga xam ne am na ko ci dëkk bu sell bi di Touba ñu ànd teewlu kàddu président de la république di Macky Sall. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi ngi yëkkati kàddu nuyoo ak kàddu di ko teg ci loxo sunu xalif général sunu wayjur sunu kilifa sëñ Muntaxa Bachir Mbacke sëriñ Touba di ñaan nga jottali ñu ziyaara boobu ak nuyoo yooyu ci njabootu Cheikhul Khadim bi yëpp ki fi teew di feddaliwaat sunu taalibe si sawet di waxaat sama mbégte ak cant gu may sant suñu borom bi mu ma mayee ma ñëwaat fekk la fii ci tuuba ci waajal bés bu màgg bi di màggal sëñ Touba taxawal ko ngir sant boromam ak ngir ñu santale ko boromam ma am nag mbégte si di la fi fekk moo tax ñuy ñaan yàlla yoon na nga fi yàgg lool te ànd ak wér ñu yàgg di la fi fekk di la jàppale it ci sumb bi nga xam ne yaa ngi ci dox dox yu am solo lu bare la maa ngi seede askan wi yëpp su ne sëñ Muntaxa bi nu yàlla boolee ba tey lu jiitu may jot ci réew mi ci njaareem la woon ma ñëw fekk ko ci ab fulk mu won ma ab ñeewanteel won ma ay ñaan ñaanal ma ba màggal gi jiitu muy toog ci xilaafa gi ma ñëw fii ñu julleendoo ci kër sëñ Touba ci biir néeg bi nga ne ma bul xool nit ñi li ñuy def yow sëriñ bi ngay liggéeyal te ku liggéeyal sëriñ bi dana la fay kon man ci loolu rek laa nekk li may def Touba xaaruma ci cant xaaruma ci ngërëm ndax la mu wax ci loolu laa nekk te may seede it ne mosuma dënk benn soxla bu jëm ci moom mi walla ci njabootam benn yoon lépp ci dëkk bi la ak ci askan wi kilifa gu mel noonu nag buñ ko amee dañuy ñaan yàlla mu bàyyi ko fi mu yàgg lool ndox dundam njëriñ la ci réew mi njëriñ la ci lislaam bi jëriñ la ci yoon bi man de awma sa pay ndax xam naa li nga ma ëmbal ci yéene xam naa ko boo waxul sax man xam naa fi nga ma féete te cofeel gi nga am ci man mënuma la ko fay kon ñu en tant que jullit ak taalibe li ñu man rek mooy ñaan yàlla mu bàyyi la fi nga yàgg fi lool ànd ak te xam ni lépp lu ma war a def ci ay bi ma suñu boroom jox ci Touba danaa continuer di ko def ndax wareef laa ko def ci sama bopp liggéeyal sëriñ bi it laa ko def moo tax euh, daray àdduna du tere du changer loolu rawatina sa jëmm ji te nga wane ko mu mot sëkk waaw ren nag ñëw nañu si màggal goo xam ne ci digg nawet la am muy nawet bu yàlla def ndox mu bari lool mu ñëw ay jafe-jafe ay ngaañ yu bare waaye ñu sant yàlla ndax bu ñu dem nawet dañuy ñaan yàlla may ñu ndox xëy na dañu ñaan lor bi bañ a bare waaye dañu toll si àdduna fu changement climatique yi taxe gis ngeen li xew ci réew yëpp Pakistan ci dëkk yu mag yi fu ne ndox maa ngi waame di yàq donc ñun itam am nañu si ay jafe-jafe rawatina dëkk bu mag bu mel ni tuuba ak Ndakaaru ndax ñaari dëkk yooyu ñoo gën a am jafe-jafe ci wàllu ndox mi waaw ah, bi tax na bi ma waxee problème mu forage euh, ndox mi amoon di bal di génn ci kër yi ñu defaraat beneen programme ci urgence di def ay forage di ko pomper waaye yàlla def nawet bi tam ñëw fekk ci loolu waaye diggante daaw ak ren def nañ programme bu am solo bu toll si ñaar fukki milliards ak ñett pour yaatalaat euh, mbànd bi nga xam ne muy bassin bu Kër ñaŋ bi nga xam ne juróom benn station bu ñu pompé ndox foofu lañ koy yóbbu donc bu ndox mi bëree nag ba ëpp loolu moo doon indi muy débordé te comme Touba amul géej gu ñuy yóbbu ndox mi faaw ñu wut ay bërëb yu ñuy yóbbu ndox mi moo waraloon ñu dem ba ci Daaru Raxmaan am fu benn bassin bu mag boo xam ne ren bi ndox mi bëree débordé na ba dugg ci tool yi def beneen bassin bu jëm Pofdy loolu it liggéey nañ ko waaye xam nañ ne doyul ndax bu ndox bëree ak dëkk bi ni mu toll laaj na ñu am beneen taxawaay moo waral ñu def bassin bu bees boo xam ne mu ngi ci kër kàbb juróom benn fukki hectare loolu mosul am ci Sénégal bassin boo xam ne juróom fukki hectare la pour di taataan ndox mi ndox mi jóge Touba jaar Kër Ñang jaar Daaru Rahman jaar Pofdi waaye itam ñu ubbi beneen bu bees boo xam ne moo nekk Kër Kàbb kon lii ay liggéey la liggéey nag dafa àndul ak wax waaw nit tam buy liggéey dañ ko war a encourager war a encourager waaw góor ndax mu gën a farlu ci liggéey gën a dolli waaye nag Sénégal tam ni mu bindoo ala kulli leen dañu nangu rek def yàlla wàcce waaye daal nga xam ne liggéey bi nga xam ne maa ngi koy def fii ci Touba ak ci Sénégal du ma si wàññi lenn loo xam ne euh, doomu aadama dina tax ndax lii sama ngëneel mooy ëllëg parce que boo fi yàlla di jëlee ñoo xam ne fa ma indi réew mi moo sut foofu fa ma ko jëlee loolu rek laa ci wut ci ngërëm li des nag keneen ku mën a ñëw mën nga mottali ak saa yu ko yàlla tudde kon sëñ bi maa ngi lay santaat bu baax forage itam yokkaat nañ si ñeent yu bees benn bi Daaru Xudóos la ak euh, Ngaabu ak euh, Bobo Boborel. Borolel Borolel am na beneen tam boobu ak mat Matlabul Fawzayni boobu moom tàmbali na donc loolu yëpp dañ koy def rek ngir fi dëkk bi toll ak population bi dafa laaj dëgg-dëgg taxaw taxawu boobu tam mënul mënul arrêté parce que boo arrêté rek mu indi gàllankoor donc dañuy far di continuer toujours ci liggéey bi. ngir euh, population yi ngir dëkk bu toll nii dëkk bu tedd dëkk Sëñ Tuuba euh, ñu mën ko taxawu taxawaay taxaw bi war loolu ci laa nekk di la sant nag di la gërëm di la waxit it nga continuer di ñaanal senegal yàlla wàcce fi xewul wàcce fi jàmm euh, senegal jëm kanam loolu ci gàttal moo doon kàddu yi ma buggoon yëkkati si turu réew mi yëpp nag ndax moo ñëwee tey dama indi ziara Sénégal yëpp ci tànk boobu laa fi ñëwee euh, di la ndokkali si bés bu màgg bi ñuy waajal mu màggal di la sant di la gërëm cant ak ngërëm goo xam ne amul àpp di la di ñaan suñu borom mu bàyyi la fi nga yàgg fi loolu ànd ak wér. mbokk yi ci euh, visite bu président Macky Sall boobu fii ci Touba la ñuy des ba léegi ndax ginnaaw yooyu nga xam ne yëkkati na ko ki nga xam ne moom moo di euh, Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou. tontu na ko mu jaarale ko ci Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdou Khadre mi nga xam ne moo yoral kàddoom moom nag mu ñëwaat bu baax a baax ci jéego yi nga xam ne saa su président Macky Sall koy def ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Touba waaye seede diggante président de ak ki nga xam ne moom moo di xalifa général des Mourides saa su moom Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdou Khadre mu xam ne sëñ bi dana ko fa yebal waaye lépp loo xam ne mu ko fay wax ci président yittey askan wi la ak yittey li nga xam ne moom moo di dëkk bii di tubaa ñu ànd teewlu kàddu yi Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdou Khadre. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa di jégalu lool kàddu yi rek ndax ndigal ndax bu ma sëriñ bi yónnee faaw ma jot li li ma wax waaye daanaka sëriñ bi tënkal na boppam li mu bëggoon a wax lépp kon ñi ngi tàmbalee nuyoo bi ci président Macky Sall. ci turu sëriñ bi ak mboolam délégation bi mu àndal bépp di ko dara jàmm ci dëkk bi ci waajtaay bis bu tedd nga xam ne bisu sëriñ Touba ni ma ko daa waxe waxtu wu ne mooy bis bi mu laxa woon di mu liggéeyali boromam ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jànkoonteeg ay metti metti yu ëpp ba yàlla suñ borom at mu jot natt yu mu ko teg bu waxtu wa dellusiwaatee mu tegaat ko yu ko ëpp noonu la doon doxe ba ci at yu mujj ci njaareem 1919 wala 1920 sëriñ bi xëy woote doon sintu natt yi yàlla suñ borom xamal ko ne ko jeex na ak pay ci des li fi àddunaa ngi dox saa su bu si accès xéewal gu man ma dama koy dolliwaat te buñ demee ba ëllëg itam foofu ay bis amu fa waaye fu koo xam ne sama bis yi daana la itteel nga di ci taxaw buñ ci àggee lépp loo xam ne ay xéewalu yoo daa am bis waa de dolli ko kon bis bii bis la boo xam ne mooy suñu lépp mooy bisu Serigne Touba di bisu yoon wi kon Serigne bi nee na président mi ngi lay nuyu bu baax xam naa wax ji du gudd ndax li mu wax nee na li ma waxoon ci làmmiñam wax na wax na ma ko démb waxaat na ma ko léegi nee na mi ngi lay nuyu. di la sant di la gërëm ci taxawaay bi nee na ni la waxee bis bii nga xam ne bis la boo xam ne ëmbalu la ci dara lu may sant la ak ngërëm la ak ñaanal la ak yee salaat lay dénk gi mu la dénkoon Sëriñ Tuubaa loolu nag doon na sëkk ndax sëriñ bi kat ku ko xam xam ne jëmm la joo xam ne nii ko kilifa gi waxee njiitu réew mi léegi ne mën naa ne néew na weer dugg ba jeex. sa sëriñ bi yónni moo ci ay itte waaye lenn lu ci mos a doon soxla ba fa amatu wala ak njabootam kon moom adduna sépp la teewal lislaam jëpp la nekkal waaye njabootu Sëriñ Tuubaa jëpp la nekkal kon nag nee na ngi lay sant di la gërëm ci mboolem taxawaay ak coono yooyu nga xam ne yaa ngi koy def di ko def ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa waaye di ko def ngeen xam cofeet gi mu la ëmbal àgg na ci boo ma ne waxuma la yërmaan waaye dama ko ñewantal. daanaka bu lay wax soxla yi nit ñi sax day diis moom ndax nee na bu soñoon day ànd ak ci yoon loo xam ne du du du la teg dara lu su bàyyi la nga ne ci liggéey waaye nag nee xam na ne kuy liggéey Serigne Touba Serigne Touba am nag pay kon nag nee na ngi lay sant bu baax ci coono yi nga xam ne waxtu ne ni ko waxee jiitu na jataayam bii ngay am ci yaakaar akuk cofeel akuk jàpp bi mu fi nekkee Serigne Touba ba nag itam. saa suy soxla si nit ñi accès ak lu jafe-jafe jafe dañ ca teg sa bakkan fexe ba na ko sëriñ bëggee mu amee ko ni loolu nag nee na xam na ne ànd nga moom liggéey bi kon mi ngi lay ñaanal la sëriñ Tuubaa daali woon ne daa waxoon ne an na man waasala nii laa li xarijin dunyawin fa innahu yakunu min al muqarrabin wa an na man waasalen li dunya faqat fa inna allaha yukrimuhu ma daama xayyan képp koo xam ne dangaa ñëw ci man te yàlla rek tax laa jukk nee na suñ borom dana la boole ci ñi ko gën a jege képp koo xam ne dangaa ñëw ci man ci adduna yi yàlla dana teel a sa diiru dund kon nag nee na na nga delloo xel te dafa njort te xam ne li nga jëfal sëñ ci dëkk bi liggéey sëñ ba di ko rëccu kenn mësu ko def kon na sam xel daal ci li sa ndax nee li nga jëf ci dëkk bi lépp gis na ko ndax 30 bii nga xam ne doonoon na mébétum dëkk bi nga ko ci muy liggéey bu rëy boo xam ne ubbi nañ ko ci màggat gi ak yeneen yi nga xam ne tudd nga ko léegi mooy forage ñeenti forage yi nga xam ne defaat nañ ko ci biir màggal gi lu wóotewut ak bokkut ak ñetti forage yi ñu defoon daaw ak assainissement bii nga xam ne ñu ngi ko door a tàmbali rawatina nag mbirum nab bii nga xam ne tiitaloon na ñëpp te jaaxal ñëpp keroog bala sëriñ bi jot ci sama kanam te laa wax na la yëpp ay soxla waaye bii mooy di ci jiitu ndax jaaxal na ñëpp ndax boo dem na bay li wër jumaa ju mu agsi ci waaye fa sansa lu matu juróom benn weer ko xam état ni muy doxe xam ne yitte ak taxawaay bu mat sëkk nga ci def ba loolu mën a am kon nag ñaan yooyu yëpp boo ko boolee lépp loo xam ne ite ma wala ittee njaboot gi wala mboolem ci dëkki yoon yi dëkki Serigne Touba foo ci déggee taxaw ca ba def ca la kaw jotam ñaan loolu mi ngi lay sant di la ci gërëm di la bàyyeeg Serigne Touba mi nga xam ne ni mu la ko waxee léegi xam na li nga jëf waxoon na noonu la ma ko waxoon ci làmmiñam xamalal ma président ne ko. dëkk bi jëf jëflantewu fee kenn ku du Sëriñ Tuubaa kon nag lépp lu mu daa jëfal Sëriñ Tuubaa ak yoon wi na ko jëme kanam yàlla def na nga waxal ko sa bopp nee doo ci am dara lu may am ak ndam ak payug Sëriñ Tuubaa bu ëllëgee nee na mi ngi lay sant la ñaan ci li sa kanam yaa xam yaa xam sa bëgg yàlla na la ci yàlla dimbale defal la ci nga amee ko na ko aw suñu jotu wa rahmatullahi wa barakatu ginnaaw bu président de la république Macky Sall fii ci Touba bàyyi ko ca Daaru Minane bu mu gisee sëriñ bi ba noppi nim ko baaxoo amalee ñëw na fii ci grande mosquée bu Touba ngir ziare si xabru cheikhul xadim bi bu mu agsee nag daayira mu xaddamatul xidma bi nga xam ne ñoo yor bërëb bi dalal nañ ko ki nga xam ne moom moo di Serigne Abdou Lahad Bousso Thierno àndoon nag Serigne Matar kan ak yeneen jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk ci daayira bi. ñoom ñëpp ñu dalal président de la république ak délégation bi nga xam ne moom la àndaloon fii ci grande mosquée bu Touba mu ñëwoon nag doon ziare si barabu Cheikhul Khadim mu dugg ziare ki nga xam ne moom moo di borom dëkk bi nga xam ne moom moo waral màggal gi muy Serigne Touba ni nga xam ne noonu la ko président Macky Sall baaxoo defee saa yu ñëwee ci bërëb bu sell bi di tubaa ginnaaw euh, nemmeekuk euh, président Macky Sall googu keneen koo xam ne kilifa la moom it euh, ci réew mi nekk ci kujjëg politique gi muy Ousmane Sonko moom it ñëwoon ci dëkk bu sell bi tubaa ci wàccaayu màggal gi ñëw ziare si woon Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalifa général des Mourides mu fekk ko ci Daarul mi nan moomit ginnaaw boo xam ne génn na ci sëriñ bi am na kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati na ko mu jëm ci ay seede jëm ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu ànd ko. xali xalif wax na lépp ñun ñi ngi gërëm ginnaaw bu ñu sante suñu borom julli ci yonent fi alayhi salaatu salaam euh, nuyu njabootu cheikhul xadim yëpp jaarale nuyoo bi nag ci ki nga xam ne moom la yàlla teg ci boppu yoon wi fi mu ne nii muy cheikh Muntaxa di xalif général bépp murit waaye di xalif général bépp jullit ndax xalif généraux yi islam lañ ci toogal amuñu barrière amuñu frontière ziar ko ziar njaboot gi yëpp euh, ziar waa dëkk bi yëpp tamit li xalifa daal tënk na wax ji mooy tey kilifa ki daf ñu wax lu am solo nee na dinaa yegg ak yéen fu moom musul a yegg ak yéen mooy séddoog ñun loo xam ne dafa bokk ci jaar-jaaram ci expérience am ci loo xam ne bëgg réew mi moo ko taxoon ba tax ci jamono yoo xam ne engagé jafe woon na ñi ko ñeme woon néew ndax ñi ko doon def sax dañ doon làqatu moom bokk na ci ñi engagé woon ngir réew mi kon loolu dox na ba àdduna delloo ko bi mu amee ñeent fukki at ak lu mu dellu si waat léppam mu jox ko yoon mu jox ko diine gi jox ko yoon wi léppam mu teg ko ci liggéeyu maamam kon loolu su ko waxee ci jotaay bu mel noonu ñun soññ la ci ñun ñu gën a góorgóorlu ndax réew li koy defar dafay dox ci ñaari tànk yooyu day dox ci mbirum àdduna ñu koy wax temporel di dox ci mbirum àllaaxira muy spirituel ñaar yooyu mooy doxal réew kon ñun su ñu nekkee ci benn pàcc bi ñaar yi nag dàqantewuñu waaye bu ñu nekkee bu ñu gënee fës ci benn pàcc bi ñëw toog ak kilifa gu toll nii mu wax ñu loolu ci jaar-jaaram defe naa ñoo war a am dégg-dégg ci gën a góor góorgóorlu gën a farlu la ca des nag mooy gërëm waa Touba rek gërëmaat leen waa Touba ak waa département bi ci seen taxawaay ci réew mi ndax fa sëñ Touba tegoon tànkam ci bañ nooteel am dignité dara mënu koo yóbbu dara mënu koo jënd tey waa Touba fa lañ teg seen tànk kon ñu dellu gërëm leen bu baax a baax ci suñu tour ak tour coalition bi yëpp délégation bu yeewi askan wi àndoon ak Khalifa Ababacar Sall ak yeneen kilifa ñoom it euh, ñëwoon nañ ci euh, ki nga xam ne moo jiite comité d'organisation bu Grand Magal bu Touba di Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadre ci résidence Khadimou Rassoul fi nga xam ne saa sunee ne bi fa lay dalal ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñëw ci wàccaayug màggal gi moom xalifa Sall am na kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati na ko mu jëm rek ci taxawaayu kilifay diine yi di ñaan saa su ci réew mi ñu ànd teewlu ay kàddoom. li nga xam ni yaa jiite comité d'organisation bi ak ñi lay jàppale ñëpp di wax ni seen liggéey rafet na ni mu demee jekk na am na njëriñ di la ñaanal parce que nit ki suñ ko sasee teg ko dara naam njort nañu njort lu rafet pour moom naam am na des prédispositions pour def loola mais na mu koy defee ak résultat yi muy jox il faut que ñun ñi nga xam ne ñun lay jëriñ ñu di la gërëm ak a sant ak a ñaanal ñetteel bi ñuy ñëw di sàkku ñaan parce que loolu mooy tànk yi parce que lii ñu dëgmal manifestation la boo xam ne manifestation la boo xam ni képp ku fi ñëw lu la jëriñ dong nga fiy jële parce que manifestation yaakaar la suñu maam sëriñ tuubaa moo ko fi liggéeyal askan wi liggéeyal ko umma bi liggéeyal ko réew mi ba tax na ku def effort tuuti dinga ci am sa wàll yàlla na ci yàlla ñépp xej yàlla na yàlla ñëpp jëriñ ñuy wax ne rekk màggal gi c'est un moment de communion su fekkee dindi nañu njëriñ ci aspect religieux bi li nga xam ni moom lay jëriñu réew mi kenn dootu ko naatable donc mu doon loo xam ne ñun ñëpp on a intérêt à que mu baax moo tax tànk yi aussi tànku encouragement la la yow ak comité d'organisation bi yàlla na leen ci yàlla may ndam comme ndam yi ngeen weesu ah di sàkku ñaan nag comme que ñun ay politique lañu dafa am ci lu ñu génn ñu gërëm la sant la parce que biñ fi mujjee di sumba li ñuy sumba dañ la sàkk woon ñaan pour que coalition bi dëgër coalition bi yaatu coalition bi am ndam ñaari scrutin yi ñu génn yàlla defal nañu ci lu weesu suñu njort ñu di leen ñaanal di leen gërëm di leen sant ci yéen ñépp ci ñaan yi ngeen ñu ñaanaloon ngir loolu di sàkkuwaat ñaan parce que soo nee da ngay liggéey ngir sa askan ak sa réew doo tàqale kook di investiru ci loolu te seen ñaan amal nañ njariñ donc ñeenteeli solo tànk bi mooy sànku ñaan pour que suñu coalition bi gën a dëgër ñu gën a ànd mais surtout ñu gën a jëriñ askan wi et askan wi gis ci boppam ñu jeexale rek di la sant ak gërëm ci taxawaay bi ci xelal bi parce que sa force mooy li ngay def am amdul ak coow di nga woote di nga déey di nga yedd di nga taxaw yàlla na la ko yàlla fay en loolu moo doon solo tànk yi di ñeenti ponk yi tax ñu ñëw fi tey te di ñaan yàlla rek comme na ko yàlla daan def ñu dem ci màggal gee jàmm génn cee jàmm yàlla mottali yéene yi mu doon ndam lu yaatu lu jëriñ askan wi lu jëriñ réew mi lu jëriñ umma bi je vous ñoom délégation Yewwi Askan boobu ki nga xam ne moo di Serigne basiiru Mbacké moom Serigne Abdou Khadre sant na leen bu baax gërëm leen ci jéego yi nga xam ne def nañ ko ba ñëw ci wàccaayug bisub Cheikhul Khadim bi ñu ñëw feddali seen kóllëre seen diggante ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba ñu ànd teewlu kàddu yi Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou ñi ngi nuyu xalifa Ababacar Sall ak mboolem délégation bi mu àndal yëpp te bu ma ci tuddee Soxna Aïda Mbodj tudd ci Déthié Fall du tudd ci Cheikh Youm tudd ci ay dara ak seex Tidiane Youm ak ñi ci des ñëpp ah. ak mboolem moo limee damay juum waaye bu ma tuddee land ci njiit yi rek mu mën a yóbbaal li ñu ci des ñëpp rafetlu kàddu yi nga xam ne soxna Aida Mbodj wax na ko ak xalifa Ababacar Sall ndax yéen ñi fi teew ñépp ku ci ne dama am lu ma seq ak moom muy kóllëre gu yaatu kon ñi ngi rafetlu bu baax tànk yi ndax soxna Aida Mbodj mi ñëw na fi ëpp ñeenti fan andi fi teraanga yu bari te wax naa ko lu ëpp fukki at ak juróom màggal ak kore tëbësu du jot mu xotti ay yére indi ko boole ko teraanga kon mu nekk ci biir nguur ak mu ñàkk nekk ci biir nguur xàmmewu ko ndax li ñu boole mu ëpp loolu ñu seq kóllëre gu yaatu mu am ak cofeeru jàpp gu dëggu ci moom boo xam ne ñëpp xam nañ ko di nuyu cheikh yu mu bàyyi ko ci suñu mbokk suñu xarit sëriñ Moustapha Sy di ko yóbbanteem nuyoo ak cant ak ngërëm ndax suñu kóllëre la ku baax la gu kóllëre gu yàgg di ñu ko nuyuñu ko bu baax a baax di nuyu Déthié Fall moom mi itam nga xam ne ñëpp xam nañ ni mu ci kër gi di ko sant ci taxawaay ak yitteem yàgg na màggalu suñu baxaat ak mu jot mosu koo manqué muy ku jàmbaare koo xam ne ku gëm li muy def la Ahmed Aïdara mi moom maa ngi koy tooñ léegi ma ne ko xanaa politique bee la ndongo waaye am na jamono daanaka saa su ma nekkee Ndakaaru bi set ma ma nga sama kër yaakaar naa cofeel gi mu am ci man adduna si yëpp xam nañ ko bari waa na lool ñoo xam ne ci moom lañ daa jaar sax ngir agsi ci man ngir ak cofeelam goo xam ne da koy feeñal ba ñëpp xam ko di nuyu ñëpp di leen sant bu baax ci délégation bi nga xam ne ñëw ngeen ànd ak ñun màggal gi kàddu yi du gudd kàddu yu cant ak ngërëm rek lay doon ndax li xalifa Ababacar Sall wax lim ci mën yëkkati ci kàddu la wax waaye la ci biir moo ëpp ndax moom nit ku baax la nit la ku am ak dal ku am tolérance ku ku baax la daal ci gàttal koo xam ne li muy def ngir yàlla rek la koy def tolool loolu dama dama koy seere ndax 2014 bi muy wut ñaareelu mandat wu maire Dakar boobu fekk na muy def bi ñu tàmbalee liggéey Massalikul Jinaan at mu jot mu yëkkati addi ju bare bare joxe ko ca te soxlawu ko ko xam ba 2014 bi mu jotaatee maire bi it mu defaat ca lu bari. loolu ku ko limoon nit ñi sax dañ leen juwe kaw moo ko masaan seer ak cant ak ngërëm mu ne sëñ bi loolu soxlawu ko ndax yàlla ak Serigne Touba tax ñu def ko day lu ñu war kon moom ku fonk Touba la ku leen cëral ku leen joxub cër la gépp kàddu gu bàyyi ko fii dana ko bàyyi xel loolu mooy li nga xam ne mën naa koo seer ci moom ba ca desit mooy nit ku xam adduna la waaye ku mën a diglu la ndax maa ngi fàttaliku ci ak yële weesu booba ñii ma seqal comité bi te ma ne ci seen karam moo ci boppam daana yëkkati téléphone di leen woo rawatina ku ma ne sëñ Abdou Lahad di leen soññ leen jàppale leen sëñ Bass yu bu baax ba mission bi mu réussir ko loolu yéene la te dool daw ko ak ñeneen ak ñeneen ba àgg ci mas ma wax ne ma bu ngeen doon xam màggal gi li ngeen ci jàngale njariñ lim am rawatina ci suñ maas gi nga xam ne gindiku wuñ woon yéen a tax lu bari ñu xam ko wax yoo xam ne yu dugg ci biir xolam yu xóot di lu ko ittee di lu ko ñor kon nag yooyu yëpp itam te kóllëre gi mi ngi koy sàmm ba nëgëni kon ñu ngi koy ñaanal bu baax di ko feddali kóllëre gi ak diggante bi ak mboolem ñi ñu àndal ñëpp di sant bu baax di gërëm. danga fee dajeeg nag ay kilifa di sëriñ Cheikh bindu Fall doomi Sëriñ Modou Abdoulaye Fall di sëtu maam Cheikh Ibra Fall mooy ab taawam ak sëriñ Saliou Thioune mi nga xam ne mooy tam mooy xalifa Sëriñ Béthio ak mboole ñu ngi fi fekk ñëpp kon di leen ñaanal bu baax siyaare bii ngeen def koy ati at te yàlla gën leen a dimbale gën leen a defal tawféex ñu ngi sant daal bu baax di gërëm di fedd ko lër bu baax baax daal ndax kóllëre moom boo ko xasee ba jàpp ak la Sëriñ Tuubaa daa wax naan ni may fasanti nit kóllëre mooy bu jàppee ma jàpp bu bàyyee ma jàpp waaye nag yow yàlla def na waxtu ne sa jàpp day gën a dëggu soxna ay dem mii loolu laa mën a seere ci moom kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi ba léegi ci xibaar yi ci wàccaayu màggal gi fii ci Touba beneen délégation boo xam ne ñëwoon na ci dëkk bu sell bi mooy délégation lébu yi nga xam ne ay saltige lañ ay ndey ji réew ay jaraaf ci njiital Pala Mbeng ñu ñëwoon nag doon euh, nemmeeku dëkk bu sell bi di Touba waaye nag doon feddali kóllëre gi nga xam ne dox na ci diggante communauté lébu ak communauté mouride loolee lépp leeral nañ ko ci résidence Xaadimu Rasuul gi nga xam ne Serigne Bassirou Mbacké moom sëriñ Abdou Khadre dafa leen euh, dalaloon ki nga xam ne moom moo di Pala nga te jiite woon délégation bi ñu teewlu ay kàddoom. sëriñ Bass Abdou Khadre asalaamualeykum ñu ngi lay ñaanal bu baax jàmm Mbàkke ñu ngi lay ñaanal wér Mbàkke ñu ngi lay ñaanal sutura Mbàkke yàlla na ko yàlla yokk waaye daal. xamul xaw ma ku xamul li muy def waaye Mbàkke yow de xam nga li ngay def bu wér nga xam li ngay def réew mii ñu nekk na Mbàkke nga bari fi nga wax wax boo xam ni ku ko dégg doo ko rafetlu loolu doy na sëkk waaye nag kuy sa maam Serigne Touba. waaye papaaya du jur kaan yi mbakke yàlla nga fi yàgg bokk lébu yi ñëw nag dañoo ñëw ngir sa maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ne nañu ko santale ne nañu ko santale yàlla ñun nag dañu ne bu ñu toogoon fa ñu toog ñun ne dañu ne bu ñu toogoon fa ñu toog di ko ko di ko ko santale dana ko gis naam dana ko gis naam waaye fii la dàqee moo tax ñu ñëw Mbàkke di sàkku ñaan lii ñu yor nag lii di ndombu tànk lébu tànk lébu di ak ndey ji réew di ak ndey ji réew wax naa barki démb wax na barki démb ne ba indépendance amagul ba tey ne ba indépendance amagul ba tey musuñoo gis gis ndey ji réew bu président de la république recevoir ak délégation la daan am daal mooy da ngay nekk ci délégation bi coutumière ndey ji réew bekku ci door a dem ci délégation bi waaye ci moom nag la yàlla dogalee premier ndey ji réew ak son délégation reçu pour le président de la république tey jii nag jàpp naa ne fii jàpp ne ni fii ci Touba la dal président moo dal fii ci Touba benn ndey ji réew musul ànd ak délégation ñëw Touba borom ndamp tànk bu ne ñëw na fi waaye ñu bëgg Mbàkke nga defal ñu ñaan ndax dëgg-dëgg bis bii daa nekk bis bu rëy ñu gërëm bu baax sa mbokk yu baax yi sëñ Modou Mbacke sëñ Abo. sëñ Modou. yaay buntu bi. yaay waatil bu yoote min yaay buntu bi. waaye sëñ Abo. waaye sëñ Abo. day suñu soppe lool di suñu xarit. day soppeem lool di xaritam lool. ñu xam këram. ñu xam mu xam suñu kër. mu xam suñu kër. ñu xam njabootam. mu xam suñu njaboot. bi ñuy def intronisation. bi ñuy def intronisation. palaasam ma nga fa mu toog. bu toog. mu nekk ci yoon otopaan moo ko tere yëg loolu mooy suñu diggante waaye bésu tey bii sëñ Bas mi ngi wax loo xam ni ñii mu àndal bariwul ñi ko ci yëg dañuy lancé tey jii site internet boo xam ni lébu gi moo ko moom kon bu ñu ñëwee fii ci Touba. dañu bëgg sa ñaan. dañoo bëgg sa ñaan. ci site boobu nga xam ni. ci site nga xam ni. lébu gi TV la tudd. lébu gi TV la tudd. ñu ngi koy door a dégg. ñu ngi koy door a dégg. ñu laal si site bi. bientôt dinañ dem ci perspective yépp ci yow la ñu njëkkee Mbàkke kon nga def ñaan ci loolu Mbàkke yàlla mi méngale sa bisu maam bii fekk fi ñuy lancé lébu gi site internet kon yaakaar na ni sa ñaan moom la yàlla nangu nangu ba tax lii am lii ci des nag mooy ñun lébu yi ñi nekk ci Cap Vert ndey ji réew ji jiite ko bëgg nañu bu ñu jógee fii nga seetal ñu bés. boo xam ni boo xam ni dañu lay invité dañu lay invité ngir sa taxawaay ci réew mi ngir sa taxawaay ci réew mi ngir sa taxawaay ci sa kër maam sa taxawaay ci sa kër maam danañu la recevoir danañu la recevoir recevoir boo xam recevoir ni boo fa ñëwee boo xam ni ñun li ñu doon ñun li ñu doon moo di dalal moo di dalal góor nee na nag mu barkeel nag ci kër maamam la fa barkeel Serigne Touba ma fa jaar Serigne fanaan fa nañu dalalee woon samaam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ba mu barkeel ba mu barkeel tey yow mi yow mi Mbàkke bëgg nañu bëgg nañu li ñuy def li def ñu recevoir la dalal la ca ngir taafu damu barke ba ba yal na yàlla wéral yàlla wéral la yal na yàlla sàmm la yal na yàlla suturaal la loo jéema ci Mbàkke yal na ci yàlla joo loxoom ba fi nga bëgg a yàggale sa kër maam gi nga yegg fëggu bëgg a yàggale Mbàkke te incha allah jàppante nañoo yow téyante nañoo yow la waaj a waxoon rek léegi euh, sëñ Abo mbokkum séeréeram bi daa jokk woon ci mbakki mbàkke bi jamono dox ba benn màggal mu ànd ak moom mu ànd ak moom yenu waxande wi ñëw sa kër maam waaye bi ñu màggalee ba dellu kër ga euh, mu ne ko dañoo war a dem mu ne ko yow daal dama lay ñaanal yàlla yow mën ngaa dellu kon ñëw naa ci ba fan gu mag gi yow daal yow yaay yaay doon daal sant naa la gërëm naa la waaye sëñ Abo xam nga yaay xaritam mat na fanweeri at. léegi ba léegi Palla Mbengue sa xarit. ba léegi Palla Mbengue sa xarit la. waaye ndey jiréew. waaye ndey jiréew ji. xaritu suñ bas la. te danañu ko dalal. te danañu ko dalal. te danañu ko waajal. te danañu ko waajal. lu ñu am ak ku ñu am. danañu xam ni. yaay xaritu ndey jiréew. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. mbokk yi ñu des ba léegi ci visite boobu nga xam ne lébu yi amaloon nañ ko fii ci euh, Touba Mbacke Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khadre sant na leen bu baax a baax rafetlu jéego yi nga xam ne def nañ ko bàyyi seen yitte ñëw fii ci euh, Touba Mbacke ci wàccaayu ko màggal gi waaye nag feddaliwaat kóllëre gi nga xam ne dox na ci diggante yoonu Mouride ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di communauté lébu bi nga xam ne ñoo nekkee ca Ndakaar ñu ànd teewlu kàddu yi Serigne Bassirou Mbacke. bokk ci lébu yi. ñuy teg nuyoo bi ci loxol sëriñ Malick malik sëriñ Maodo malik Ngom ak sëriñ Pala Mbeng ak mboolem ñu ñu àndal ñëpp bu ñu leen xasee tudd rek mën nañoo yóbbaale ci des ñëpp. di rafetlu kàddu yu baax a baax di leen dalal jàmm li alxuraan santaani rek wa iza xuyyitum bi taxiyatin fa xayyu biha ahsana minha aw rudduha kon buñ leen mënta jox nuyoo ba bu yeyoog bi bu rafet bi ngeen ñu jox ñu dellowaat leen nuyoo boobu di sant bu baax a baax ci lii nga xam ne def ngeen ko te yàlla def mais mujjee ndakaaru ngeen defoon délégation bu mag ñëw fa àdduna sëppi rafet lu ko walla képp ku bëgg lu baax fasanteeg man kóllëre te kóllëre googu ngeen fasanteeg ma it ngeen di xam ne nu ngeen ko jàppale jàpp nañ ko nu ko ëpp ndax innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum ndax suñu borom dafa wax ci alxuraan ne jullit mbokkam dëgg-dëgg mooy ci mbokk diine lislaam kon ñu xam ni li ñuy wax yaa ayyuha nnaas inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaa'ila kon li tax suñu borom bindi xeet yi wutale ko looloo tax waaye nag inna akramakum indallahi atqaakum ki gënal yàlla rek mooy ki gën a foofu la ñuy gënantee waaye annaasu min jihati tamthili akfa'u abuhuma aadamun wal ummu hawwa'u fa in atayta bi faxrin min zawi xasabin yufaaxiruuna bihi fa tiin wal maa'u mal faxru illa li ahlil ilmi innahum anil anil huda liman istahda adillahu kon ñuy rafetlu bu baax a baax jéego yii ngeen def te Serigne Touba dafa masoo wax ju am solo booba ay mbokk jullitam kilifa gu mag moo fi yónnee woon délégation bokk moom lislaam ji mu ne ko bu ngeen demee nee leen ko yaar rekk fi nekk innamal mu'minuuna ixwatu ak inna sheytaan lakum aduwwun mu ne ko innamal mu'minuuna ixwatu mu ne ko ak tey la inna sheytaan lakum aduwwun ak nax la mu ne ko waaye tey gi ci innamal moom ixwatun nag ndax gi ci inna cheytaan lakum du mënu ko yàq kon nag seen délégation bii nga xam ne koo gis xam ne ne fonk ngeen fi ngeen jëm waaye li ci ëpp solo nag mooy Serigne Touba ba ñu woote bis bii wax ne na ko ci ñëpp santal yàlla dafa wax ne képp koo xam ne sama mbég sa mbéga boo seete na mooy santal yàlla ci shukurullahi sant yàlla da mooy ci berde wax ne nag kon yéen dégg ngeen li Serigne Touba doon woote kon bu ngeen demee ba ñëw fi xam ngeen ne Serigne Touba képp ku bëgg lu baax rek wala képp koo xam ne ab jullit nga wala képp ku ko sopp rek bokk nga ci biirum njabootam kon loolu yëg nañ ko bu baax kon ñu ngi sant bu baax di rafet lu tànk yi di leen gërëm bu baax di leen ñaan itam suñu borom gën leen dëgëral kàttanal leen di leen xamal ne daal jàpp nañ ko léegi dégg nañ ko te fas nañ bu baax. parce que ñu koy ne sàmm itam lépp loo xam ne nekk ngeen koy itam ñu ànd ko yéen ci lu baax wa taawunu alal birri wa taqwa wala taawunu alal ismi wal udwan ñu ngi leen di santaat bu baax di leen gërëm di ñaan bis itam nga xam ne ren ngeen ko tàmbali ngeen yàgg ko def bu baax a baax day ceeg ngërëmul yàlla suñu borom day ceeg ngërëmu Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo wootoon bis bi ñu leen sant bu baax cant gaañ suñu lañ ko tibbee asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jàmmi réew mi nekk na lool yitteel na lool mbooleem délégation yi nga xam ne dañuy ñëw fii ci tubaab bokk na ci léebu yi nga xam ne ñoom it biñ ñëwee nee ñu daañu def seen kéemtalaay kàttan ba kër diine guñ dem Euh, taxawaay bi nga xam ne moo war président de la république ci jàmm ci réew mi daañu ko dox bu baax a baax di ko wax loole nag nekk na seen yitte te yëkkati nañ ci ay kàddu bi ñëwee fii ci Touba ginnaaw bi ñu gisantee ak sëriñ bi ba noppi ñu ànd teewlu kàddu yi Pala mi nga xam ne moo jiite woon délégation lébu yi. Euh, jàmm jooju li ñuy def nii jàmm tax ñu man bu dul woon jàmm taxawaay bi du man nekk kon jàmm jooju yàlla na sax waaye njiitu réew mi. président de la République son excellence monsieur Macky Sall daf ma boole ci ñi mu wax ni dafa yaakaar ci ñoom pour dalug réew mi dafa yaakaar ci ñoom pour jàmmi réew moo tax booba ba léegi ñu sol suñu daal di dox jàmm jooju di lëkkale mbokk yi fu am conflit ñu dem fa fu am différence ñu dem fa fu am juuyoo ñu dem fa loolu mooy suñu rol teyit ñii nu jiital loolu lañ ñu jiitale dañ bëgg ñu représenter leen ci jàmm dañ bëgg ñu di leen doxal ci jàmm dañ bëgg ñu di leen waxal ci jàmm kon jàmm jooju moom la ñuy tàllal moom la ñuy woote moom la ñuy wax. jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllum wér gi yaram fii ci Sénégal di docteur Marie Khemesse Ngom. moom it àndoon na ak délégation bu takku ñëwoon fii ci euh, Touba ci wàccaayu màggal gi doon xool ndax matuwaay yi nga xam ne moom lañ jël ci wàllum kër docteur fan lañ ci toll ak euh, visiter li nga xam ne moom moo di hôpital bu yees bi ak mboole matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko ci euh, màggal Touba gi ginnaaw boo xam ne gisee naag ki jiite comité d'organisation bu màggal gi di Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadre moom docteur Marie Xemes Ngom yëkkati na ay kàddu ñëwaat ci ni mu gën a yaatoo ci mboole matuwaay yooyu le jëm ci wàllum wér-gi-yaram ñu teeluy kàddoom mooy li nga xam ne am na piiru moo tax bu ngeen nee borom këram ak yooyu dama leen wax da ngeen dal dañ koy métitlu di ko nakarlu mais li njëkk def mooy dañuy incliné wu si mémoire suñu sœur Dora Diallo ñuy ñaan yàlla mu taxawu ko ci àjjana yi nga ñoo gën a kawe yëf yi nekk dégg ngeen ko yéen ko gën a xam loo xam ne dafa nekk ci justice dañ koy bàyyi ci justice di ñaan yàlla yal lépp leer. merci ah. màggalu ko Touba ay millions yi taalibe dañuy ñëw euh, ci fii ci euh, Touba Mbacké rawatina fii ci grande mosquée bu tubaa ngir amal seeni ziar ba tax na daayira Muxaddamatul Xidma ci infirmerie bi nga xam ne. moom lañ am ci biir euh, jumaa ji ngir taxaw mboolem ñi nga xam ne dañu fi ñëw te am ay gàllankoor ci wàllum wér-gu-yaram rawatina ci jamonoy màggal ki nga xam ne moom moo di professeur Daouda Ndiaye ni mu ko baaxoo amalee ci at yi ñu weesu ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalifa général des Mourides indi na fi lim bu tàkk lool ci ay garab ngir jàppale ko infirmerie bi nga xam ne moom la waa daayira mu xadamatul xidma yor ci jumaa ji ngir mboolem ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe yi bu ñëwee fii ci jumaa ji képp ku ci am jafe-jafe ñu mën lay euh, taxawoo ci fànn googu ñu ànd teewlu kàddu professeur de Ndiaye. di waajal bis bu mag bii ñu dëgmal muy bisub màggal Touba euh, ñëw fi nag teew fi ni ñu fi teewoon nege ne si daaw ci liggéey bu am solo bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma daf koy def ci jumaay Touba muy saytu jumaa ji ak waajal màggal gi. waajal màggal gi nag ku nekk xam na jumaa ji mbooloo mu bari mi fi ñëw di ziar si ak di julli si mbooloo moomu nag war nañ leen a taxawu ci wàllu wér gi yaram ba tax na mu Muxaddamatul Xidma at yi weesu yëpp mu ci doon def ay jéego ba amaloon benn infirmerie bu am solo ci biir jumaa ji ngir gunge pèlerin yi nga xamante ni ñoo ñëw ci màggal gi di julli si ak di ziar si taxawaay yooyu nag daayira Muxaddamatul Xidma lëkkaloo ko ak ñi nga xam ne ñooy yëngutu ci wàllu wér-gi-yaram fii ci Touba muy district sanitaire bi te am ñu leen fi teewal dinañ ci ñëw ci kanam waaye nag mu am partenaire u daayira bi mën naa wax koo xam ne taalibe bi sëñ Touba la koo xam ne euh, day yëngutu ci wàllu wér-gi-yaram di ci dimbalee màggaluk Touba nag depuis daaw mu amoon ndigal lu bàyyi ko woon ci Cheikh mun taxaa mi fi nekk Serigne Touba yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te may ko wér mu joxoon ko ndigal ci mu taxawu daayira Muxaddamatul Xidma ci fànn googu ci wàllu wér-gu-yaram muy professeur Daouda Ndiaye mii ngeen gis daa ni ngeen si daaw indi woon na fi lowu matériel boo xamante ni xaalis bu baree bari bu takkoo takku la boo xam ne yëg nañ ne taxawaay yi nga xam ne moom lañ doon def ci wàllu wér-gu-yaram fii ci jumaa ji amoon na solo lool yokkoon na ko lool nit ñi itam yëgoon nañ taxawaay yooyu bu baax a baax a baax a baax euh, ren itam mu defaat jéego yu mel noonu waaye nag dolli ko gis ngeen li mu présenté ci ay article xëy na man xaw lu bari ci wàllu wér yaram jàpp naa ne euh, bépp taxawaay boo xam ne war nañ koo taxaw ci wér-gi-yaram rek jumtukaay yi ci jëm moom lim na ko fii muy jumtukaay yu baree baree bari bari kon nag lu mel noonu su amee moom itam ñu jox ko kàddu moom mi nga xam ne moo indi jumtukaay yooyu mu sànni ay kaddu ëpp ci euh, infirmerie bi ñoom ñoo koy saytu bu ñu noppee nag dinañ jox sëriñ Abdul Xaadir Ñang mi nga xam ne ci commission sociale euh, ak santé bi nga xam ne ñoom lañ dénk wàll gi ci daayira bi te sëriñ Abdul bu Bousso maam Assam mii jiite ko moom dana wax ci turu commission boobu waxaale itam ci turu sëriñ Afiya mi nga xam ne mooy euh, njiitul daayira Muxaddamatul Xidma kon professeur ñu jox la kàddu gi rek gannaaw bi ñu la dalalee jàmm yaak délégation bi nga àndal rafetlu itam liggéey bi nga xam ne def nga ko at yi yëpp surtout daaw bi tàmbalee ba léegi nga ànd ak daayira bi di leen taxaw ci wàllu wérgi yaram ci taxawaay yooyu daaw itam nga def ci jéego bu am solo boo xam ne ñëpp ñëpp apprécié woon nañ ko len itam nga ñëwaat ngir li ndigal loolu la sëriñ mun Mountakha joxoon kon ñu ngi lay dalal jàmm di la sant ci turu daayira Moukhaddamatoul Khidma eh, jébbal la kàddu gi euh, ma commencer d'abord euh, euh, may tàmbalee wax jërëjëfatee sëñ Touba Euh, di sant yàlla bu baax a baax a baax euh, di sant ki fi toogal sëñ Touba sëñ Mountakha Mbacké ñu koy ñaanal yàlla gudd fan lool bu ànd ak wér képp kuy njaboot gi ak képp ku nekk ci liggéey bi ñu ko yàlla yàlla may leen gudd fan bu ak wér di tegaat sama nuyoo ci loxo sama xarit sama sëriñ sëñ Cheikh Awa Balla Mbacke sëñ Moustapha Bachir di nuyit ñi fi toogal daayere bi sama daayere bi Moukhaddamatoul Khidma bi nga xam ne sëñ Afia moo ko jiite ñoom nga gis ñoo nekk fii sama daayere la ndax ndigal gi may jot ci ku tedd gi sëñ taxa ci seen loxo ñoom lañ ko teg ñu am ci taxawaay bu am am am solo lépp lu ma fi def jàppale na ñoom def nañ lu ko ëpp lool ci ginnaaw ndax lu ñu def ba xam ne lii la soxla ci wàllu kër docteur loolu rek dafa kéemaane loolu nag sama naataangoo docteur Thioban ak docteur Ablaye ñu ngi fi ñoom it dama leen di sant bu baax a baax a baax ndax buñ ci jàppul woon du seen liggéey du yomb di wax ne daal kii wax yéen ab taalibe la ci la juddu ci la màgge te ci lay dee incha allah rabi moo tax lépp lu ñu fi def ñun waruñu ko gis ndax ki ñu koy defal kooku àdduna daf ko war a fay waxuma jullit yi waxuma murit yi àdduna daf ko war a fay ndax dafa defar àdduna foo dem ci àdduna moom liggéeyam am na fa impact donc bu ñu yàlla jagleel rek ma ànd ak sama ñu war àndal ba ñëwaat fii loolu jagleel la loolu loolu loolu loolu wërsëg ëpp ko. man nee naa gars yi maa leen ëpp chance. ndax euh, lii ñu ko bëggoon def bari na de. ñu ko bëggoon mënoon def bari na. moo tax euh, daw liggéey ko def ko loolu contentement mënu ko dépasser. ñu wax ne daal li ñu di indi encore une fois pour dalal xel yi nit ñi la parce que koo xam ne defe naa Sénégal àdduna kenn du fa des fi la ñëw te nit boo dem fee dafa laaj ñu dalal ko te ñëpp xam nañ ne ñuy dalalee ci xéwal yi ci dëkkuwaay bi waaye ci wàllu sécurité waaye si dafa am boo xam ne moo tax nit ñi di xëy di mën a wax mooy wàllu wér yaram euh, naam xam naa ne lépp lu war ci wàllu loolu sëñ Tuubaa yor euh, toppatoo na ko lijjanti na ko moo tax fii ci jumaam ji nga xam ne fii la ñëpp di ñëw mu fexe ba moom sëñ tubaa ba képp ku am soxla ci wàllu wér-gu-yaram mu teg fi ay docteur ay jumtukaay yoo xam ne ku lu la fel xosi sax ñu faj la moo tax lii tey ñu indil ko sëñ tubaa moo ñu ko yónni ñu indil ko ko ñun ci dara lu moom moo ñu ko yónni ñu ko ko ñun defuñu si dara donc lépp lu wàllu faj bi ci xale bu tuut tànk bi li ñu naan bébé kii soo ko juddu ba kër màgget ka lépp lu fi nit war a am ñaanuñu ko yàlla waaye loolu war àdduna dudde ku ci xosu wala nga feebar fi lu la mën ci dal bala ngaa dem ci benn hôpital muy bu Sénégal ci bitim réew mën nañ la toppatoo fii ba pare loolu mooy li ñu indi ci ginnaaw lépp luy wàlle médicament kon li ñuy wax ay médicament mooy li ñuy per yi li ñuy naan ci li ngay naan li ñu lay jàmm mooy piqûre yi li lay perfuser parce que parfois médicament bu nit ki nekkee ci ak tayo bakkam lay mën a jël médicament mais bu xamatu fu mu nekk kooku dañ koy perfuser lépp lu docteur yi di soxla ci perfusion yi ak yeneen yi ñu ngi ci biir muy tension ba muy jabet ba muy buur buur buy metti ba muy gaañu gaañu bi muy miir ba muy ki soxla oxygène lépp lu mu nit soxla pour dalal doomu aadama yi ne leen Tuubaa de defat nañ seen mënën mooy ñu woowu ñu nit ñi rek seetaan leen ah ku ci feebar nga xool foo jëm déedéet fii ku fi dugg ci kattanu yàlla ñaanu yàlla dara dal la mais bu fekkee ne jàmm nga fi indi jàmm ngay ñibbiwaat loolu mooy li li tax ñu indi lii te loolu am te nee naa leen li ngeen gis ci ginnaaw euh, moo tax ñi ma ko santoon nee nañ ñoom doyaluñu dañuy indiwaat joxaat naa ak instruction docteur Aliou Ndiaye ak docteur Epen nee nañ même altine li ngeen gis nii ñoom nee nañ dinañ indiwaat yeneen parce que fii moom loo fa indi du doy te xam naa ne lii moom mën na mën na lijjanti màggal gi moom waaye ñeneen ñoom doyaluñu ba ki tëdd ci lalam li ngay soxla pour pour pour su am gis bopp li ko kër di waxee fooy demee euh, euh, ci sa génne ndox indi nañu lépp loolu nag boo amee aussi damay sant waa daayira bi encore ndaxte nag lii bu amoon te te kër gi ñu nekk mooy barab ba mooy dispensaire bi hôpital ba fi ñuy war a nekk doxul walla am lu manqué kon tey lii du mu la am donc daayira bi damay wax ma seedeel nit ñi en moi xam ngeen ne man su ma waxee damaa war a wax ci wàllu wér gu yaram su ma waxee damaa war a wax ma wax Sénégal wax àdduna ne li ma gis fii depuis aj ñu def ko fi ak ba tey ji nii mooy Touba de jumaa ji ñëwul kenn ci wàllu wér gu ak faj loolu nag bunt ba ci bàyyiwuñu dara dara bàyyiwuñ ko mooy condition yi nga xam ne la ñu war hospitaliser nit ñi respecté na norme internationale moo tax man leen euh, ma insister ci man maay wax nit ñi xam nañu dégg nañu subaa ngi nii incha allah war naa dem Cap Vert lu mel nii lañ may woowee foofu pour ma lijjanti leen dawaat ñëw ci màggal ga ñaari fan laa fay def ndax lii donc bu ma bitim réew war a mën woo man may doomu sëñ taalibe sëñ Touba bokk ci kër gi moo mën a wax ne bitim réew que am fii amul foofu amul feneen. jëf ji nga xam ne euh, professeur Daouda Ndiaye euh, def na ko muy euh, médicament yi nga xam ne moom la baaxee daayira mu xadamatul xidma ci seen infirmerie bi nga xam ne moo nekk ci jumaa ji nekk na lool mbooleem daayira mu xadamatul xidma sant nañ ko bu baax a baax gërëm ko ci taxawaay bi jiite ji nga xam ne saa su ne mu koy def ngir taxawu infirmerie bi ci dolli leen ay jumtukaay waaye ay garab loolee ki nga xam ne moom moo di Serigne Djili Niang wax na ci turu daayira Muxaddamatul Xidma sant bu baax a baax professeur Daouda njaay ñu teew teewluy kàddoom. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. sëñ professeur ñu ngi lay nuyu bu baax sëñ Daouda. te nuyu mbooloo mi nga àndal ñëpp ci turu Serigne Afia Bousso ak mbooleem jëwriñ yi nga xam ne ñooy taxawu liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma ak ci banqaas bi nga xam ne ñoom nga wuy si tey muy commission sociale bi ci sa sëñ Abdou Lahad sa jiite ko di yëkkati kàddu rek muy kàddu yu gàtt ndax defe naa li ñu waroon wax leen li wax nga ko li ci def sëñ Abdou Lahad wax na ko te kenn la ci ñun li nga xam ne yow it kenn nga ci ñun kàddu yi nag kàddu yu seede lay doon mën naa ne sant gi moom xanaa bu ñuy sant nga sant ci santuk donga waaye ki war a sant mooy xam sëriñ Mouhamadou Mountakha wala sëriñ Afia mi ko jiite ndax moom moo la joxoon ndigal nga jëfe ndigal li kon cant gi moom moo ko moomee waaye baax na tamit nag nit fekke dañ laa booleek moom mu jëf baax na nga seede ko kon ñun suñuy kàddu ci seede yooyu rek lay jëm li ñu ci warit mooy seedeel la ko ci sa teewaay bu ñu noppet bay def li ñu war a def ci ginnaaw maga mooy évaluation bi ñu seedal ko ki nga xam ne moo ñu boole ak yow ci xamal ko ne ko liñ la santoon def nga ko ni nga ko defee woon daawit ñu yëkkati kàddu yi rek muy kàddu yoo xam ni kàddu yu sedd la ak i ñaan yu la xamal ne def nga jëf ju defate nga sax lay wax jëf ju baax a baax di jëf joo xam ni ju munta ñàkk la ndax toog nañ fi bërki dem ci benn émission rek te lu mel nii lañ doon sàkku mel na ne diglu nga ko waaye wuy sa nga tamit woote boobu ndax màggal moom bernde la sëriñ bi wax jaamu yàlla ak bernde la jaamu yàlla nag nit ki la ko man faw mu wér lii sabak ak wérit mooy fagaru bu yàlla defee ba nga xam ne tamit agsi na tamit lay tax nga man ko mooy nga am lu la ci mën a jàppale ba loola teggeeku te loola moom nga ñu féete nii moom nga ñu defal nii tey kon nag ñu ngi lay seedeel te di la yëkkati kàddu ci turu waa mu Muxaddamatul Xidma yëpp di la xamel ne daal yoral nañ la njukkal ak cant ñaan gi nag ñaanuk donga lay doon ndax sañ sëñ Muntaxa war a ñaan waaye ñaanuk dongaat wala ñaanuk jullit bu bégit defe naa am na solo ci moroomu jullitam kon loolu moom ñu ngi lay xamal ne ci sunu xool ñu ngi ci jël ay ñaan yu kawe kawe ak kàddu yu sell ak yéen ju rafet rafet di ko jëmee ci yow di ko jëmee ci mbooloo mbokk yi nga àndal yëpp ci jëf ji nga xam ne jëf nga ko sëñ Abdou Lahad nag dafa am lu mu waxoon ci liggéeyal borom Touba dafa mos a wax sëñ Moustapha Bassirou ne ko du ma yërëm kuy liggéeyal sëriñ bi ndax kay fay laa xam kon man na laa dugal ci cadre boobu tamit xanaa ñi xamut waaye ku xam te mos ku mel ne Cheikhul Khadim ci jëfal ko yaakaar naa ne loo ko jëfal da ko xeeb te tamit doo ci am lenn loo ci regretté ci ne bu ëllëgeet incha allah nanga ko bëggee da nga ko ni amee kon loolu li ñu man ñun mooy seede la rek bu ñu noppi bàyyee la ak moom li nga ciy fas ak li nga ciy yéene nag yaa ko xam ñi ngi ñaan daal lu mën a doon dara rëyut ci moom ci sunu borom. ndax daafan mu daafa lay faye moom. ni doomu aadama li def boo ko defee benn mu jox la benn sunu boroom ëpp na loolu. ndax li tax. mooy moom léppam dafa baax. ay magasin bu yu baax rek ci nekk moo tax ñu ne boo defee benn mu defal la ko fukk wala ñaar fukk. amut beneen magasin boo xam ne dafay def ab safaan moo tax ñu ne ku def benn ba bu safaan suñu borom dala koy delloo ndax amut fu mu ko denc ginnaaw lu baax la am nag te lu baax nga jëf ñu ngi ñaan na la ko fulal fi nga xam ne moom foofu la foofu la toll moom buy fay fayee la ci foofu faye la tamit ci sunu yéene ci yow wax dëgg yàlla ndax féete nga ñu foo xam ni bu lii amutoon yi dañuy sonn rek waaye des na ko jéem baa fu na dana ci fa dugg ngir tuñ tuñu ngir am lu mel noonu kon nag ba yàlla defee nga féetuñu foofu dégg ndégal li la sëriñ bi sant nga jafe ko te sëriñ bi waxoon ne waqdi xawaaija lasina daamoo fi xidmati wax hablahum ma raamoo bayit woowu moom mooy ñaanal boromam te moom wax nañ ne lépp lu mu bind rek fekk na suñu borom nangul ko ko ba noppi fajal ma ajooy ñi nga xam dañ may liggéeyal kon nag yàlla na la fajal say aajo te fajal ñu suñuy aajo te fajaale mbooleem aajo yi ku dégg suñu kàddu kon mbokk yi màggalu ko Touba bokk na ci ay jotaay waxtaan yu am solo yoo xam ne dañ koy amal ci dëkk bi loole waa daayira mu xadamatul xidma di ci amal ay jotaay yu am solo bokkoon na ci jotaay bi nga xam ne amaloon nañ ko fii ci euh, buntu kër Serigne Fallou Mbacké ci juróom-ñeenti euh, fan ci euh, safar gi mu nekk jotaay boo xamante ni tànnoon nañ ci thème bu am solo ñu ko doon waxtaanee mu jëm ci Cheikhul Khadim bi mu nekkee ci gànnaar ak njeexintal yi loole nag nekkoon jotaay boo xam ne kilifa yu bëree bëri ci yoon wi teewoon nañ ko. waaye ki nga xam ne moo jiitee comité d'organisation bu màggal gi di sëñ Bassirou Mbacke moom sëñ Abdoul Khadr moom it na jotaay bi ginnaaw boo xam ne noppi nañ ki nga xam ne moom moo di sëriñ Abdoul bu Bousso maxtaar indi na ay leeral ci li nga xam ne moo waraloon waxtaan woo nga xam ne ñu ko doon amal ci wàccaayu màggal gi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ bi ndajam tey mii li ko waraloon bés la boo xam ne euh, depuis mën naa wax ne 98 ba léegi daayira Moukhaddamatoul ma di ko amal. di ko waajalee màggalu Touba euh, dañoo baaxoo saa bu mag at weeru màggal gi teroo ba dox tuuti ñu tàmbali ay bés yoo xam ne dañ ciy amal ay waxtaan yu am solo commission culturelle bi di ko taxawee commission culturelle bi nga xam ne sëriñ Abdoul Ahad Bousso Thierno moo ko jiite ñoo koy taxawee euh, di ci def ay waxtaan yu am solo li gën a bari nag dañ ciy fàttaliku tukkib sëriñ bi ci géej gi ak yi ko ci yàlla defal ci ay may waxtaanee nañ ci point yu bari yoo xam ne ci lu mel noonu la aju ci ay xam-xam boromi xam-xam yoo xam ne yu am solo la ñuy doon yu ràññi ko la ñuy doon ci yoon wi itam yoo xam ne ñu ñëpp xam seen xam-xam lay doon te rafetlu ko euh, ñu baaxoo di ko def nag ba comité d'organisation bi juddu bi mu juddoo nag tàmbalee ay ay activités culturelles yoo xam ne mi ngi ko dénk daayiratu Rawdu Rayaahiin euh, nga xam ne moo taxawee commission culturelle ci màggalu Touba euh, te mbokk ànd ak communication bi nga xam ne sëriñ Abdoul Ahad Mbacke moo ko jiite sëriñ Abdoul Ahad nekk président commission culturelle et communication sëriñ Ahmadou Badawi nekkat président sous commission culturelle ñuy ànd nag ak daa daayiratu Moukhaddamatoul ma ci bis bii at mu jot ñu tànn benn bis boo xam ne bis bu rëy lay doon boo xam ne eh, dañ ciy waxtaane lu jëm ci tukkib sëriñ bi bis boobu ñu baaxoo di ko def at mu jot bis boobu lañ doon amalaat fii dañoo baaxoo woon nag daan ko def guddi ci biir jumaa ji ci esplanade bi waaye ren xam ngeen ne nawet bi ak contexte bi mu dajal ndax dañoo dajal wax set te wax set dafa baaxoo di taw ngoon lu bëree bëri moo tax ñu taamu ñëw defee ko fii ci baasu Hizbut Tarqiyyah bi ci passage bi ñu di leen sant bu baax di leen gërëm bu baax ci yombal gi ñu yombal liggéey bi ak jàppandal gi ñu jàppandal barab bi ba ñu mën ko fee defee nii ñu ko fi defee bu doon bis boo xam ne nag su ñëwee ba Moukhaddamatoul Khidma baaxoo na ci di ànd ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom lay jëfalanteel ni mu ko àndee ak comité d'organisation bu Magal Touba gi ni la mbooleem selil yi daayira Moukhaddamatoul nekk ci biir réew mi ak yi nekk ci bitim réew ren nag mu am particularité particularité bi mooy jigéen ñi dañ leen daan jéggal ndax guddi gi ren nag gis ngeen baas bi ni mu yànjee macha allah li ëpp ci jigéen ñi ñëw nañ jigéen ñooñu nag dañuy mbooloo moo xam ne daayira Muxaddamatul Xidma lañu bokk ñoo xam ne li ko tam ay bis yëpp semaine bi yëpp bis bu ne am na ñu war a ñëw ñoo xam ne suñu ñëwee dañ fiy def liggéey bu am solo dañuy bale jumaa ba mu set wecc ñu raxas ko ba mu set wecc ba génn ci bitti ba ci tali bi euh, yaakaar naa ko fi faral di romb ak suba danga nga leen faral di gis ñooñu dañ ko def ay euh, pàcc pàcc ñii dañuy ñëw samedi ñii dañuy ñëw ajjuma ñii ñëw samedi ñii ñëw dimanche ñii ñëw altine ñii ñëw talaata ñii ñëw àllarba ñii ñëw euh, ajjuma alxames daaira asxaabul janna moo ko baaxoo di def euh, ñooñu ñëpp nag teew nañu ci jataay bi macha allah ñi ci di góor ak ñi ci di jigéen ñi ci di mag ak ñi ci di ndaw euh, ni ko noonu itam lañ koy ànde ak mboolem ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu xam-xam gis ngeen daairatu wàllu Wafa ni mu fi teewee gis ngeen xuratul ayn ni mu fi teewee gis nga rawdul rayahin donte ñoom ñoo ànd ak ñoom organisation bi itam teew amaat nañ fi délégation gis ngeen Touba kanam gis ngeen sulamul wasul gis ngeen waa kër ma Masamba gis ngeen mboolem ñi nga xam ne rek euh, euh, académie minan mboolem rek groupe mbooloo yi nga xam ne ñi ngi yëngu ci xam-xam ci dëkk bi Azhar ak ñëpp teew nañ fi euh, yeneen kuréel yi nga xam ne itam dañuy yëngu ci liggéeyal Serigne Touba ni ki Touba ca kanam ni ki xisbu tarxiya ni ki ahibaul xadim ki wilaya mboolem groupe kuréel yëpp baaxoo nañ di ko ànd ak daayira su Muqaddamatul Xidma noonu ñu ko daan defee itam defe nañ ko nañ tey ñëpp daal teew nañu ci kanam Serigne Bassirou Mbacke mi Serigne Abdoul Khadir mi nga xam ne moo jiite comité d' organisation bi ak njaboot Serigne Touba gi fi teewoon euh, ñu ràññee Serigne Cheikh Oumy Mbacke Serigne euh, Sidi Mbacke mi Serigne Abdoul Khadir Serigne euh, Ahmadou Rafahi ak mboolem yeneen kilifa yi nga xam ne seen i doom lañ ak seen i rak ñoom ñëpp ñu ñëw ngir taaral jotaay bi ak ànd ak Moukhaddamatoul Khidma ci liggéey bi ñu waxtaanee fi nag ponk bu am solo dañ daan faral lu ci lu ci bari dañ daan tànn tukki géej gi ren nag dañoo tàgg tànn tukki Mauritanie bi ndax am nga mu am solo ndax Sëriñ Tuubaa ci boppam moo wax ne ku jàpp ne tukkeem bi mu tukki woon ci tukki ci géej gi ak tukkeem bi mu tukki ci euh, jéeri ji ñoo yem yaa ngi nax sa bopp ndax tukki jéeri ji moom dafa mel ne ak pay la boo xam ne suñu borom daf ko ko pay fële nag ab liggéey la bu doon liggéeyee euh, moo tax tey ñu tànn tukki bi jéeri jooju di euh, tukki bi nga xam ne sëriñ bi defee woon na ko Mauritanie xëy na waxtu moo xat waaye ki ko doon def nekk na ko ko xam nekk ko man niñ ko euh, introduire rek ci bi ñuy tàmbali waxtaan muy sëriñ Mourtada soo imam ndax yàlla def na Cheikh Mouhamadul Mourtada moo ko yóbbu woon foofa mu doon fa jàngee jànge fa lu bari ci xam-xam itam euh, yàlla dimbali ko it mu jubóog waa réew ma yëpp xamanteek itam mboolem gàdd yi nga xam ne daan nañ jëflante ak Serigne Touba ñu seq ñoom jàmm ba mujj sax mu nekk euh, ki nga xam ne moo dox diggante yoonu murit ak gànnaar googu nga xam ne ñoom ku ji ñëw fii ci moom ngay jaar délégation buy jóge fii ci tur sëñ bi di dem gànnaar it ci moom ngay jaar yàlla defit mu nekk ku mën a gëstukat bu mag boo xam ne àndoon na ak Cheikh Mouhamadou Lamine moom Cheikh Mouhamadou Mourtada ca bu yàgg ngir dajale euh, jeexiti Serigne Touba yi nga xam ne def na ko ci gànnaar kon kooku mel na ne li ñu koy defloo lum xam la lum man la te defee ni mu ko defee it wane neen xam na ko mën na ko te rafetal na ko itam moo tax kon ñu ngi sant ñëpp ñu fi teewoon di sant ñëpp euh, di sant presse bi bu baax a baax a baax ci taxawaay bu am solo bi ñu ci taxaw ñoom itam ci wàllu jàllale ji mu nekkoon kàddu sëriñ Serigne Abdou bu Bousso Makhtar ci waxtaan wi nga xam ne daayira Moukhaddamatoul Khidma ñu ngi ko doon amal mu jëm ci euh, wàccaayu màggalu Tuubaa yi mbokk yi soxna yi nga xam ne ñoo nekkee ci daayira Moukhaddamatoul Khidma tey euh, setal bërëb bu sell bii nga xam ne moom moo di jumaa ji bés bu yàlla sàkk li ko dalee ci uh, ak uh, samedi ba ci aljuma ñoom nag uh, ci wàccaayug màggal gi indi nañu seenu barkeel seenu barkeelu jébbal ko daayira Muxaddamatul Xidma mu nekk taxawaay bu am solo boo xam ne soxna yi nga xam ne ñoo nekkee ci daayira bi ñu ngi koy eh, taxawu saa su ne bu weesoo li nga xam ne moom moo jëm ci eh, seetal barab bi lépp loo xam ne ñu ngi koy eh, taxawal ci dëkk bi mu rawatina daayira Muxaddamatul Xidma dana ñëw ànd ceeg ñoom ñoom ginnaaw nag seen at yi jooju nga xam ne jébbal nañ ko am na kàddu yoo xam ne taataan nañ ko fa ñu ànd teewlu leen. leen di leen ziyaara di leen màggal bu baax a baax di ñaanal Cheikh mun Mountakha Mbacké mu am fanu gudd lool ak wér ah, di ko ñaanal jullit yépp di ñaanal sëriñ bi ba lépp loo xam ne loolu la yéene ci liggéey maamam bi mu sottal ko ba def ci lu kawe njort te ñu ànd kook moom di ziyaare bu baax a baax kilifa yi muxaddamaatul xidma yi bu ñu ci tuddee sëriñ Afiya Buso mën naa yóbbaale mboolem turu ku nekk ci muxaddamaatul xidma di leen ziyaare bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di ziare kilifa yi fi toog yépp xam naa dañuy bëgg a dugg bañ a dugg ci lim bi ndax bañ a juum waaye xàmmee nañu ñëpp egg nañ suuf nuyu leen ziar leen màggal leen bu baax a baax di beral nuyoo ak soxna Bintu jàmbaari Serigne Touba ji toog waaye di beral nuyoo ak ziar sunu soxna Mbaye di jàmbaari Serigne Touba ji toog ah di ndaw lu Serigne bi liggéeyloo mu bàyyeekoo Touba Daaru Xadim kër Sëñ Fallou Mbacke jumaa mu dima yëkkatiloo kàddu cant yu jóge ci moom jëm ci waa Muxaddamatul ma waaye mu di ma yëkkatiloo kàddu cant yu jóge ci moom jëm ci mbokk mii xaritam bi soppeem bi di soxna Bintu Sarr tam ànd ak moom liggéey bi ak mbooloo mi mu àndal yépp waaye mi ngi may yëkkatiloo kan kàddu cant ak ngërëm ak jaajëfal jëm ci jàmbaari Serigne Touba jooju di soxna Njaxat Mbàkke moom Cheikh Abdou Lahad nga xam ne soxna Njaxat liggéey boobu mi ngi ci ànd ak soxna Ummi Fay nga xam ne saa su ne moo fi teewal soxna si ci lu bari ginnaaw bu fi soxna si nekkut bu fi teew tamit ñoo koy ànd di sant nee na soxna Abibatu Jóob Dakar ak ñi mu àndal liggéey ba ñëpp mi ngi leen di sant nee na mi ngi leen di gërëm ginnaaw bi sëriñ Abdoulahad Diattara limee waa Ndemeen ak Cécé ak Daaru mar Marnaan waaye damay taxaw tuuti ci Ndemeen ndax danoo bokk ci liggéey bi di ñëw ci liggéey bi tey ñu defaat leneen muy dikk fekk siwaat jébbali bi soxna Ngoone Faal ma nga ne toog ak mbooloo mu àndal jóge ca Ndemeen ca boori Cilmaxa kon yal na leen sëriñ bi fay ci tànk ñëw yi ak yooy dellu yépp di sant képp ku ànd ak soxna Mbayang Jum ñu ngi lay sant di la jaajëfal di la masawu coono waaye nag sonn nañ ko fu jara sonne muy sonn ci liggéeyub sëriñ Touba ñi ngi leen ciy sant yéen mbooloo mi ànd ak soxna Mbayang Jum yëpp ñi ngi leen ciy sant bu baax a baax a baax a baax bàyyiwunu góor bàyyiwunu jigéen bàyyiwunu mag ak ndaw ku fi teew ak ku ci bokkoon te teewoo fi yéen ñëpp soxna Mbayang Jum mi ngi leen di sant sant ak jaajëf la am nag ak xol bu sedd ak ñaan waaye fay sëriñ Touba ko am te dana fay képp ku ko liggéeyal wala ku ko yéene te du jaawale ji fi kenn ak morom bi yéen ñëpp soxna Mbaye mi ngi leen di sant di leen jaajëfal di bàyyee ak Cheikhuna Ahmadul Khadim mi nga xam ne mooy fay di leen sant bu baax a baax di leen jaajëfal bu baax a baax waaye di sant soxna Siré Diagne ak soxna Mbène Sakho ndax lépp loo xam ne day xéewal yu ñuy indi fii ci jumaa ji lu jëm ci wàllu café ak mburu lépp lu fi waay indi rek bu dee café dangaa dimbale soxna Siré Diagne bu dee mburu la dangaa dimbale soxna Mbène Sakho kon ñooñu mënuñoo bañ a taxaw jaajëfal leen sant leen ci gërëm leen ci sant ñëpp gërëm ñëpp soxna Ndey Jaañ ca Mbàkke Bawal ak ñi mu àndal ñëpp moom it ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm ñi ngi leen di jaajëfal ah may sant soxna maam Jaara Jaw ak soxna Xadija mi nga xam ne damaa séq ñu ak ñoom liggéey bi ak sëñ Pape Diop nga xam ne wàllu xaalis ak wàllu mbind dafa doy dafa metti ñoom ñëpp maa ngi leen di masawu coono di leen balu àq ci ànd gi nu ànd ngir jëmmi sëriñ tubaab di liggéey lépp lu ci àq jun yëg ak jun yëgul ñoo ngi leen koy jéggalu bu baax a baax te di leen jéggal di ziare képp ku àndoon ak soxna mbayan Jum liggéey bi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax xam naa moom da xaj na du yomb ci moom waaye man de kenn ku ne mën na maa jaar ci sa tur mën na maa jaar ci saw sant yéen mbooloo mi toog yëpp ànd ak soxna Mbayang liggéey bi kenn ku ne mën na maa jaar sa tur ak sa sant jaajëfal la sant la jot li leen soxna si wax waaye loolu yëpp day nuru leneen mboolem ko fi teew. te ànd ak soxna Mbaye Ndioum liggéey bi sant nañ la gërëm la jaajëfal la bàyyee la ak Serigne Touba mi nga xam ne nag moom lañ doon liggéeyal te du jaawale jëfi kenn ak morom di sant soxna mbay Mbaye Mbacke Mountakha mi fi toog di ko sant bu baax Mbacke baax la di ko ziar te di ko jox wàccuwaayam di ziar képp kilifa gu fi toog di ànd xol bu sedd ak mbégte ci liggéey bi nga xam ne Serigne bi mi nga na koy liggéeyloo waaye di sant bu baax a baax ñaari jëwriñ yi xam ne ginnaaw ba lépp ci seen loxo la jaare mu mel ne ñoom amuñu ab coono ndax biñ leen wooyee ci liggéey Muxaddamatul Xidma dañ na ñoom képp kun bokkaloon pas-pas ànd ak yow di liggéey ci Touba ca kanam yow lan woo ci ma Moukhaddamatoul Khidma bi loolu tamit lu am solo la lu jar a leeralaat la yéen ñi fi ñëw yépp yéen a ànd ak ñoom ci liggéey Touba ca kanam bi bokk ak ñoom pas-pas ànd ak ñoom di yëkkatee ndoog ñoom di tegandoog ñoom kon soxna yi ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi leen di gërëm bu baax ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ak fi jamono bi toll ak fi jaboot toll ak fi situation yi toll te lépp lu ñu mën a woote ci liggéey sëriñ bi lépp lu waay jàppoon sa kër teg nga ko ci suuf fas yéene fab sa doole ak saw ñaq ñëw liggéeyal si sëriñ bi bu dee lu ñuy laaj kenn mënu leen ci te ñun ñi yor carnet yi am nañ ci seede bu baax a baax a baax kon ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di ñaan yàlla nañ fekkee déwén te tal ko lii nu am ren man ko bu déwénee yàlla na man man lu ko ëpp ci barke borom jumaa ji ñu liggéeyal sant ak ngërëm ñeel na ñëpp lu jub ci kàddu yi mbaaxu suñu borom la ak ndimbalu sëriñ lépp loo xam ne da cee dëng matadik doomu aadama la waaye amoon naa yéene sant ñëpp gërëm ñëpp jaajëfal ñëpp ci sunu turu jëwrin soxna Mbaye Njung ak ci turu soxna Bintu Sarr jàmbaari Serigne Touba yi toog neex a àndalub liggéey lool dun nu fakkatal benn yoon lu nu benn yoon dan noo bàyyi ci sunu tey ci bakkan nu ànd ak mbooloo mi di jëf leen teen ñoom sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen jaajëfal nañ leen di wàcc foofu suñuy kàddu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ku ne màggal ne bernde ku ne bernde ne dem ci marché bi ba tax na jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllum njënd ak njaay di ministre du commerce Aminata Assome Diatta moom ñëwoon na ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Touba doon nemmeeku li nga xam ne moom moo di marché bi ndax jumtukaay yi nga xam ne moom la ñuy yéewoo ngir berndeel gan yi lépp jàppale na fa ak njëg yi ndax yokkuñ ko loole nag ginnaaw nemmeeku gi nga xam ne amal na ko moom nee na xelam dal na te lépp loo xam ne taalibe yi dinañ koy téewoo ci li nga xam ne moom moo di ay denrée lépp dana yemb incha allah te njëg yi danañ sàmmonteeg seen kéemtalaay kàttan ba kenn du ko mën a yokk ñu teewlu kàddu yu jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllum njënd ak njaay di Aminata boo koy monté. ñu gis euh, dal na suñu xel ndax xam ngeen ni mission bu njëkk bu ñu dénk ministère du commerce moom mooy fexe ba ci marché bi ñu fekk fa euh, produit euh, yi ñu soxla kon tey bu ñu ñëwee ci marché bi. gis ci quantité yi ñu gis ci marché bi dafay dalal suñu xel ndax ci lëndi ba ñu jóge def nañu benn réunion ak commerçant yi waa Touba ak yi nekk dakaar pour waajtaay euh, màggal bi donc mu amoon ay jafe-jafe yu ñu foo signalé woon mu am tamit ay mesures yoo xamante ne jël nañ ko mesures yooyu nag. mu bokkoon ci euh, pomme de terre importée bi nekk par exemple ci port bi ñu bàyyi ko mu dugg si euh, bu ko defee bu ñu am benn euh, problème donc démb rek bu ñuy def suñu évaluation ñu ngi nekkoon si 750 tonnes boo xamante ne jóge na dakaar di ñëw fii ci Touba donc ñëw nañu tey aussi constaté gis ni wax dëgg yàlla commerçant yi si seen bopp wax nañ ni produit bi mu ngi si marché bi et que amuñu benn jafe-jafe te prix yi tamit mu ngi euh, nekk prix yoo xamante ne yu acceptable. produit yëpp euh, ci fu mu toll nii doy na muy su produit surtout yi nga xamante ne moo nekkoon problème fan yële moo nekkoon oignon bi. oignon bi am nañ lu tolloo vingt cinq mille tonnes boo xamante ne mu ngi ci euh, fi Sénégal donc boo xoolee ci pour màggal bi liñ ci soxla mu ngi nekk trois mille tonnes. donc am nañu quantité bu doy te commerçant yi ñu ngi dem jëndi et donc amul benn jafe-jafe en tout cas ministère du commerce mu ngi nekk toujours seen wet képp ko ci mëntul am jafe-jafe rek ñu gunge la ba nga xamante ne li nga soxla dina mën a agsi suñu beneen mission bi justement euh, moom mooy fexe ba njëg aussi yomb euh, donc suñu mission bi bu njëkk mooy fexe ba marché bi déjà mu nekk bi bien approvisionné ndax bu produit bëriyee ci marché bi rek prix du yokk maintenant ñi nga xamante ne yokku nañu prix te mu nekk ci produit yoo xamante ne fixé nañu seen prix dañuy sanction bi dana gën a métti te loolu euh, service yi vraiment dogg nañu ci képp koo xamante ne wàcc nga yoon ci lu jëm ci prix yi sanction bi nga xamante ne moom lañ lay teg dina nekk sanction bu diis. ministère du commerce beneen rôle bi ñu ko dénk moom mooy aussi fexe ba produit yi nekk ci marché bi mu nekk produit de qualité kon. Euh, bi ñu waajee bi ñu jubloo ci màggal gi dañu renforcer service yi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey fii ci région bi rawatina nag ci département Mbacké bi donc service yooyu ak agent yi nga xamante ne moom la ñu leen renforcer ñu ngi fii ci marché yi di xool produit yi pexe ba bu ñu jaay consommateur bi lenn loo xam ne mun na ko jural lorange kon liggéey googu ñu ngi ciy def liggéey gu am am solo ñu ciy encourager encore une fois tous les agents jërë jëf mbokk yi lii lañ leen indiloon tey jii ci xibaar yi nga xam ne moom lañu leen doon baaxee fii ci grande mosquée bu Touba ci wàccaayu màggaluk 1444 ginnaaw gàddaay gi war a doon le 15 septembre 2022 ñu leen di dig daje incha allah ci yeneen xibaar waaye di leen tàggoo ci xasida gi nga xamante ni moom la Serigne Cheikh Bassirou Bousso jàng ñu dig leen daje rek incha allah ci yeneen xibaar yoo xam ne day ko fii ci Touba Mbacké wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. salaatu lazi fi kulli shahrin wa fi safar xamaani ala maaxin maxal xabsa wa safar حماني على ماهل مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر raditu anil mawla wa an xayri xalqi alayhi salaama man lahu ubtu bisafar salaatun wa taslimun ma'al bishri sarmadan على من به مكتي مع الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل خاد لي مكوثا وتبشيرا لدى الجن والبشر رفعت شكري بعد حمد مخلد لباخ محا دري الذي حازه القدر صلاة الذي أدعو عبدا له به على من بي لي قاد صفوا بلا كدر فصاحة خير الخلق أبدت قصائدي وكوني بها عبدا خديما له ظهر فساد خير الخلق أبدى القصائد وكوني بها عبدا له خديما له زهر فساد خير الخلق أبدى القصائد وكوني بها عبدا خديما له زهر ربحت رباحا لم يكن قط مثله بفضل الذي كوني حبيبا له اشتهر salaatu lazi li qaada kawni xalilahu ala man bihi li tayyabal badwa wal hadar futuhaati rabbil arshi an qad maayibi بجاه الذي باهت بمن علو مضر رباحي في إخدام خيل ورابدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي سفر رباهي في إخدام خير الورى بدا وفي كل سهر زيد ربحي وفي سفر رباحي في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي سفر إن شاء الله